lebih jam ngeen lépp jàmm ngeen waaye maa ini, nii gen, ngeen mais booy dama la namm namm bu bëri mais sa kanam gi lewet na da ngaa naan diwlin ah mais bàyyi looy nyangga nii gars di garaaw garaaw gis nga ndànk mais booy dama amoon fu ma bëgg a dugg ak yéen waxtaan ak yéen waxtaan bu am solo waxal gan dama bëgg ngeen xam leen birmi, mi nga sama guy, yi dëggu dëggu xëcc bu daggul eh amul bàyyi deh. yéen a ngi may dégg wala. ñu ngi dégg baax yow looy wax.